li ci yenn kaay yi. li ci yenn kaay yi. Astou Sylla naa ci ma noppi te dégloo ma xel ginnaaw coowal présidentiel yi nga amaat nga beneen mandat yaay monsieur président Macky dafa woote woon am ndaje def discours bu njëkk fa la waxee ne élection yi weesu na ci sama xalaat mooy amul ku gañe amul ku perte réewum Sénégal moo gañe léegi nag tàllal naa samay loxo bàyyiwuma kenn ngir ñu liggéey Sénégal Macky Sall ne bàyyiwuma kenn muy ku jeeg politique gi di société civile gi ba ci sax ñi fi nekkoon njiitu réewum Sénégal muy président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade ñi ma jiitu woon ci réew mi maa ngi woo ñëpp président Macky Sall ne bàyyiwu ma kenn yërëma Les di ñu xamal ne président Macky Sall wane a mu bëgg mooy ñaari fan ci weeru avril ci la war a defee prestation de serment nee ñu paree dina def ay proposition Le Quotidien yéen a kaay di ñu xamal ne militants yi nga xam ne dañoo bokkoon ci idi 2019 te yoon tegoon loolu loxo yoon teggi na loxo le soleil yéenekaay dañu xamal ne Macky Sall kay jamono ji waxtaan wu ubbeeku la woote ak woote jàmm mu mel ni Walf Quotidien moom gisewu ko noonu dafa jàpp ne Macky Sall a mu wax ci mbirum Karim Meïssa Wade ak falaat gi ñu falaat Macky Sall ba ci sax démb waajim fekkoon ci otoom te mu jàpp ne dañ koy yónni woon kon muy ñaawlu bu baax lu ni mel ñu daanalee ko ak wàllum tàggat yaram yi Real Madrid génn nañ leen ci Ligue des champions bi AS moo ko génne woon ci Ligue des champions bi mu nekk loo xam ne kenn xaaru ko woon ngir am betteel Astou